Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué de ce dimanche 7 juin Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1266 tests réalisés, 79 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 6,24 pour cent. Les cas positifs sont répartis comme suit. 68 cas contacts suivis par nos services, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis ainsi. Ngor, 1 cas. Pikine, 1 cas. Dalifort, Mermoz un cas Fann Hock un cas Keur Massar un cas Parcelles Assainies un cas Cité Biagui un cas et Touba deux cas. 76 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc guéris. quinze cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. l'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 4328 cas ont été déclarés positifs, dont 2588 guéris, 49 décédés et donc 1690 sous traitement. Le ministère de la Santé de l'Action sociale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 ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn test yi ñu def juróom ñoo ci positif maanaam juróom-benn fukk ak juróom contact fukk ak benn ñu gis ci Ngor benn Pikine benn dalifor benn Mariste benn. Mermoz benn Fann benn kërmasaar benn Parcelles Assainies benn cas Cité Biagui benn kaa communautaire Touba ñaari cas communautaire juróom ñi nga xam ne mooy malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bësu tey fukk ak juróomi cas ñu ngi ci suñu service réanimation yi ñeneen ñi des ci suñu hôpitaux yi ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas njëkk ba senegal woññi na ñeenti junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas yoo xam ne kaayu yu positif la ñaari junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñett wër nañu ci ñeent fukk ak juróom-ñeent ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonte digle yi nga xam ne moom lañuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm